wax nag ci candidat yi rek département bi ñun tok ñu am riyan seen dañ ñoo da xépp ma diyan moy xépp seigne Cheikh Say moy xépp njabootu suñu sang yi ban commencé département politique ba légui mu am 15 jours ci tay amul kenn ko xam ne ci liste bi ko taxaw ma Mariane waaw ñun ñu taxaw fi mënu gën a ñu bañ fi taxaw mo gën ñu taxaw fi ndax ko xam bu na defee ci liste liste ba du gañe ñu taxaw ñu bañ fi taxaw mo gën gëna taxaw fi wa nak heureusement bi liste moom lepp luñ ci man ko bel si bi gañe amna ko xam ma dégg dañ ne ko taxaw ma diyan ndax Mariane naax Mariane kenn ñoo fi a responsable fi nekk man mii dama fee nekk yor ma sama eh, eh, samay sama samay mbootaay Mariane 1 ba 6. Gasko tam benn million la ñu jox tubaab bi rek jël sëñ Siim sëñ Blaat moom moyen dugg fa financement dugg fa te ñoo koy gañ ma fay responsable benn million yaakaar naa ko ñu doon campagne 15 jours boo biir sa moyen bopp da nga da nga da nga da nga da nga sonn kon nag ñu président lay sant di ko gërëm ndax doo dugal sonn Mariane bii 25 millions. muy financement yi mu jaaroo ci loxoom day Sëriñ Diop ministre de la femme pour nu tasaare ci jigéen ñi yàq bi dara moom it. parce que dañuy tuwaat 10 millions 800 def ko ci départ ci zone 4 bi di Madiyana ñu commencé ko 1 ba 6 zone bu nekk ñu jox ko 500000 ñu jox ko 1 million ba ci Madiyana 6 bi kon loolu lañ la bat ñëpp ñoom la wax wut seen bopp yomb na ko parce que daanaka mënut a tax a jóg ku ne xeeb parce que daan xeebul. ku nit xeeb président xeebul kon nag ko fi taxaw tamit ñun dañuy sant yàlla ndax ba suñ tubaab séddale fàttewu doon say son yëpp ndax Mariana ndax Mariana kenn ko xam na ne dëpp kàttan ñaan kaay ndax borom jàng alxuraan ak jàmm yàlla njabootam gi fi nekk nag muy góor muy jigéen xamuñu jàng alxuraan ak jàmm nekk na war a nekk jamono dafa woote politique ñu dugg ci teenee bi lu jamono war dañ cay nekk waaye nag taxul ñàkk fe doon ta ñàkk fii lu tax tamit jaay suñu ngor Mariana si gis ma sa dugg deux mille euh, ci Covid 19 ba financé nañ deux cent millions crédit mutuel lañ fi jamono nag ku wax comme neex wedd comme neex ba waaye nit ñi ko jox xam nañ ko deux cent millions yi la commencé Madiane euh, un Madiane kenn doon ca war a amangoo ak Touba Bel ñu dikkaat ci fan fan yee ci ginnaaw na fi jox ma ay machine wala Madiane Touba maa ñoo ko ma jox ma di wax de machine wala Madiane Touba maa Abdoulaye Seck Sadaga ñoo ko àndoon moo taxaw sama wet Méridiane 1 Méridiane 5 Méridiane 6 am man demal jigéen mën ñu ko utiliser njaab teg seen nga population Touba Méridiane la nekk bureau di Méridiane la nekk ñu nuy xeeb di ñu jox na mu jaar ci sool yi muy financement yi waat teen ko ci askan bi amul leen lu fi duggaan nag dañu njabootu suñu seesay xatalul kenn buuxuñu kenn kon fi buux nag danga si bla seeg sara moo ko sana yow Mariana xam nan na Mariana xam nan xam nan sa kanam ndax koo xeebal bi sa mu xeeb la xootu la bi sa mu xeeb la tam amul lu Mariana waaye nag dañuy sa jàpp ci ci ci liste bi bam jaan président jàpp ci liste nam def du suñuy kilifa fonk na suñu seesay téye na sëñ Cheikh sëñ Cheikh jël engagement man bu fekkoon ñoom ñëpp jël sa pa sëñ Cheikh jël engagement rek ñoom war na jël yoon na ñëw ci dëkk bi ndax engagement sëñ Cheikh say jël maa ngi laa tuuti nag fa yi nga xam ci dëkk bi ba ñuy xeex président 2019 ñoo xeexoon ñoo na xeexoon élection yi passé kon nag nañu bàyyi président yi tànn nit ki boo ko bëggut ba mu gañe président di ko bëgg a na assemblée nationale bu sa loxo nekk sama damay rus yéen waa Madiane soxna maam say kenn mosu koo fekk fenn foo xam ne dafay jooy te jooyalul waa Madiyaana waa Madiyaana yéen ko ameel njukkal lu mu guddi guddi fii la jëm si ñuy nuyu sox sëñ Abo di nuy soxna Soda Dieng mi ñu gis lu mu guddi guddi fii la jëm si lu mu am fii la koy indi su gisee président Macky sàll ak ku mën gis danaan la man day Madiyaana siis mooy sama yitte kon soxna maam say gàcce nga laama ñu ngi ciy profité di wax président Macky Sall ne ko élection yii nag ñu nekk moom list moom kenn waxatu ko wéy na moo waral nag mu futteeku nekk ci di jàpp fas yéene list bi jàll gis nañ ne ni mu ko defee fii def na ko fu bari ci dëkk bi ñuy ñaan président Macky Sall bu élection yi passé au conseil mi ngi ñëw conseil économique social mi ngi ñëw nañu ko ci dugalal lu ñu neex la. maam say bu ko neexee yëkkati loxoom tàllal mel na moom képp moo fi jóge ci parti ñëw ci parti APR di gagné. ñun ñi fekk ci parti bi gagné wuñu mais moom day gagné Touba Belel te day am Madiana loo xam ne nii kenn mun la ko wax maa fekkee la Touba bëgg kon Macky président Macky Sall war na koo téye ak fukki loxoom. soo ko meloon it dama koy wax ndax ña mel maa ngi leen koy wax. kon maa ngi lancé appelé son excellence wax naa ko ko nee naa ko électorat Sénégal jigéen ñee ko yore nan nangu loolu électorat Sénégal jigéen ñee ko yore na jàppale Mame Saye mu jàppale jigéen ñi